mbokk yu nekk bitim réew ma nag ma jaajëfe leen gërëm leen sant leen parce que ba Sénégal doone Sénégal ba tey c'est pour la première fois que Sénégal noonu tey expérimenté li ñuy woowee cohabitation ginnaaw bu ñu leen félicité li ñuy sàkku ci yéen mbokk yi mooy fulla ak fayda su ma baat ci kaw dégg nañ fi léegi seen tête de muy benn jigéen qui n'est même pas capable de gagner une petite commune à Dakar taxaw di lim ay département yu ñu gagné ñoom su ma baat ci kaw soxna si kilifa du fen kilifa du jéem a yee fitna ci réew su ma baat ci kaw benn Bokk Yaakaar est minoritaire dans ce pays et la cohabitation aura bel et bien lieu euh, tontu nag du forox yéen askanu Sénégal mooy tontu suba parce que demain nous sortirons dans les rues te di ngeen ñu wax fan ngeen jëlee seen majorité parce que da ngeen yebaate lu may wax ci ñu ngi jéggalu nag ci kilifa diine yi di jéggalu ci kilifa aada yi di jéggalu ci suñu ay mbokk parce que am na lu ngeen xam ne ni kenn du ko fi nangu dégg naa soxna si bu ñàkk jom ak ñàkk fayda taxaw fii ne ñoom ñoo gagné département de Mbour te dañ leen duma Mbour ba sëlamal leen muy continue lim ay département je le dis haut et fort marche du am autorisation bi ñu ko laaj. vous n'avez pas gagné trente départements sur les quarante-six c'est un vulgaire mensonge mais sachez une chose c'est que quand c'est fini c'est très douloureux de l'accepter mais dama ne di ngeen ko par force parce que la rue va va s'exprimer au besoin avec tous les moyens à sa disposition la cohabitation on vous l'a dit lors de la campagne elle est inévitable vous n'allez pas aller à cette Assemblée nationale avec une majorité que vous avez préfabriquée. Nous n'accepterons pas. Nous avons des résultats sur la base de PV et je répète tout de suite que ce n'est pas à vous de déclarer des résultats. Vous avez perdu cette élection au niveau national. Dans la diaspora, vous avez été laminé. Donc quand vous donnez des résultats en disant que vous avez gagné dans la diaspora, je vous invite à revoir vos chiffres parce que nous ne l'accepterons di di sàkku nag ci jeunesse bi fu waay mënti nekk mobilisez-vous et attendez les mots d'ordre parce que cette forfaiture ne passera pas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp et on vous souhaite de